lon bi ak télévision Futurs média benn waxtu jot na nañu ak sa yéen ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës ay directeur de publication ca kanamu section de recherche euh, bu euh, gendarmerie kon euh, loolee fan yii la ba ca mujj nag démb lañu leen mujjoon a wolu ku demee ni que nekk fële ca l'observateur ba dara Fall moom mujj nañu ko teggi loxo ndem sax tey ji ci suba wuy jiwaat na Mohamed Gueye moom bu quotidien ba tey ji ma nga ca loxoy takk der yi euh, moom bokk na ci li ñu koy euh, toppee procès verbal kon euh, bu déglu gi ñu doon déglu Thione Seck ñeneen ñi ci lu soxal article bu ñu bindoon ci déploiement soldats yi waroon dem fële ci Arabie Saoudite ñu fekk ji suñu ndaw ca buntu section de recherche Codé njaay mu indi ci ay leeral police génne na communiqué ci ñeenti gone yooyu réeroon fële ca Géejawaay yi ñu kidnappé woon nee na kon du benn kidnapping loolee dara mu ci dañoo réeroon lu waral coow leeral yi kon ci biir xibaar yi Thiès foofee danañ toll ci ñaari téeméeri njaboot yoo nte ni dañu nañu leen reloger ca ZAC bu Thiès Nord loolee gannaaw mbënn moo xamante ni kon am na fa réaction construction logement sociaux yi ña nga fa woon ngir xoora naka la ñu war a doxalee euh, ca dëkk boobay lu jëm ci wàllu ko dossier bi tey jii ñu ngi ko jagleel euh, Front patriotique pour la défense de la République euh, gis nañu ni kon kuréel googu tàng ci wàllug critique ak yu ni mel euh, dooleem dëgg ci ko politique gi jéem nañu ko nat euh, leeral yi ci njeextalu xibaar yi lay doon ñu tëjee yéen kaay yi ponk yaa ngoog ni studio ñu yaatal ko. mbokk yi de lu rafetlu seen ànd ak télévision Futur euh, Média Mohamed euh, Gueye kon euh, bu le quotidien Alioune Badara Fall bu l'observateur ak Mamadou Wane fan yi ñoom ña nga doon baagante ca section de recherche bu kon gendarmerie Colobane loolee nag ngir ku ci nekk ci ay article yoo génne le quotidien ñoom seen njiit ñu wooye ko lu soxal procès verbal mbirum Thione Seck loolee mu publier woon Alioune Badara Fall ñoom ak wàll euh, côté ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Mamadou Wane euh, ñu convoqué leen gannaaw article boo xamante ni siiwaloon nañu ko euh, ci kon weeru mai déploiement contingent soldats yi waroon dem fële ci Arabie Saoudite loole ñu jàpp ni kon secret la nu ñu ci jotee moo jur kon seenu ko bagante gannaaw ba ñu leen gardé woon à vue ba teggi leen loxo tey jii xëyaat nañu woolu leen ndem Mohamed Gueye moom ba tey jii mu ngi ci loxo yi waa gendarmerie Codé Ndiaye la ñuy fekk ji foofee Codé ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu soxna Ngoné. Euh, kon de ndax euh, kon presse bi ñu ngi foofa ngir topp mbir mi buntu section de recherche kon tey jii lan lañ fa mën a jàpp ci xibaar gaañaa ngi ci biir wala dellu nañu. waaw de ni nga ko waxee noonu la actuellement Alioune Badara Fall nekk directeur de publication bu l'Observateur mu ngi ci biir ànd ak Mohamed Gueye moom it nekk le quotidien ñoom ñaar ñëpp dañu leen a convoqué fii ngir ñu àddu ci mbirum kenn ki mu Alioune Badara Fall ci déploiement soldats yi ñu defoon ci benn article bu génnoon le huit huit mai dernier fi mu nekk nii nag ñu ngi ci leen di déglu ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed Dieye si la fanaan biig ku na xam na ne Alioune Badara Fall démb woon woon nañu ko fi ba mu ñëwee nag euh, kenn ko fi ba vingt trois heures fi mu nekk nii nag dañ dafa xëy ñëw wuy wuyu si waat fii ci Colobane fi mu nekk nii mi ngi ci biir lépp lépp daal ci rotan bi danañ fexe ba auditeurs yi xam ko su may wax ak yow nag presse bi ñu ngi ci biti parce que ñun xam nga ñun kenn ñu obligé ñu dugg ci biir moo tax nekk ñu ngi ci biti di xaar lépp lu fi lépp loo xamante ni daal euh, nañ ko fay am danañ fexe ñi nga xamante ne ñoom ñooy auditeurs yi ak téléspectateurs yi daal di ciy jot Codé Ndiaye ñu lay gërëm mu ñuy toppal kon loolu lay xew ca section de recherche dinañu ci dellusiwaat police moom ngir leeral génne na ab communiqué ci ñeenti gone yooyu ñu ni woon euh, dañu leen a enlevé te ñu tegaat leen bët ba ñu dellu ci seen loxoy euh, njaboot euh, nee nañ mbir mi nag du enlèvement ñoom ñeent ñooñu jàngi woon alxuraan ñu ngi woon ci loxoy waa ji tudd Mortala ñaw ci jàmmagan jagsaaw ñu ni moom Mortala moomu jotoon naa informé gendarmerie bu Thiaroye baax naka noonu responsable yu marché ba waaye it euh, chef de quartier ba àgg na sax ba ci rajo bi di euh, Raay bi FM noonee sax la moo tax kon parents yi mujje gisaat seeni gone gannaaw ba ñu leen dégloo seet leen nee nañ gisuñu benn mandargaal maltraitance euh, ci yooyee gone police nationale nag di rassuré nee na daal mi ngi wéy li sàmm kaaraangeek askan wi askan wa nekkee fële ca Thiès rawatina ñu nga xamante ni ñi ngi am jafe-jafe mënd toll nañu ci ñaari téeméeri njaboot ñoom nag dinañu leen yóbbu reloger leen ca kon ZAC bu Thiès Nord direction construction des logements sociaux di xeexit wàllu mbënn mi ña nga woon fële ca Thiès ngir xool dégâts yi nu mu fa toll gouvernement bi ñu ni faaw mu mobiliser fukk ak juróom-ñeent ci milliards ngir programme national bi leeral yi Cheikh Anta Diop di délégation bu yaatu jóge woon nag ci direction construction logement sociaux ak xeex wàllu mbënn mi dikkoon fii ci Thiès demoon ci quartier mel ni Ngent Kër Maam El Hadj ak Sampaate ñoom de xoolal nañu seen bët jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi am nañu ko ci mbënn mi nga xamante ne laal na kër yu bari fii ci diwaanu Thiès. ba tax nag kilifa yi taxaw nañu temm jël ay dogal ngir entreprise bi taxaw ci liggéey yi ndax ñu gën a mën a fattar ñi bi dimbali askan wi. fexe ba ndox mi mën a mën a circuler dindi salte bi yëpp loolu aussi moom la tooy dox aussi focardage des mar mooy ñax yi gudd yi nekk ci biir euh, déeg ñu mun ko dindi donc loolu actuellement ni moom la ñuy def loolu nag bokkul ak li mën a régler euh, problème yi définitivement. leneen loo xamante ne yëkkati nañ ko fa moom mooy ñi nga xamante ne loru nañ ci mbënn mi de te seen kër yi jamono yi fees del ak ndox dañ leen a yóbbu ci yeneen i site man leen a tabaxal ay logement am na projet bu mag boo xamante ne war nañ ko def projet boobu moo dañoo war a tabax juróom-ñaari téeméeru kër donc Thiès gi ñu nekk dina ci am incha allah ñaari téeméer donc ñaar téeméer yooyu principalement waa Ngent horticole la def nañ recensement bi et tout. donc maintenant li ci des rek mooy euh, waa biir de pare yónnee dosi euh, document yi fii comme ça ñu mun ko tete am nañ yaakaar ne fekki weer projet ba bu war naa mën a commencer. gouverneur bu Thiès Amadou Sy préfet bu département bi Alioune Badara Samb samp nañ yopp commission boo xamante ne ñu recenser ñi xamante ne lor nañ ci mbënd mi famille yi ñu ci bëri de ñu ngi ci njàqare nee nañ de nañu gaaw ci wàllu bi. korite gi di jege si ginaar di gën cher fu demee ni marché Tilène foofee ñu ne yokk nañu njëg li la ko waral ñuy jaay ne nañ wilaas ñu ko daan jëlee gis fa ginaar moom day gën di jafe tax nag ñenn ñi ngir daal yokkute gi gëna a bañ a mitti tàmbali nañoo jënd suqikat yi moom waxtu wi waxatuñu dara ay sa tupe Fall. maire Awa Diogteel jëndi ay ginaaram yi mu si taamu nag di poulet du pays muy waajal korite gi. balaa ñuy yokk njëg yi. man à l'avance balaa korité di ñëw damay jënd su ma jëndee garde kër ga. waaw su ko defee damay dugg ñi may dugg yëpp ba jeex tàkk rek ma daal di toog stocké. prix yi daal euh, prix prix du pays entre cinq cent 3500 3000 foofu la toll dañ ko yokk. waaw parce que à l'avance yi daan jar ay 2500 léegi ñooy jar 3000 yi daan jar 3000 léegi 3500. korite gi des ay fan waaye jaaykat yi ñoom door nañu gàtt yokkute gi. ay yi nii nii nii nii nii nii de chair moom moo xaw a tuuti a ah, daa bëriwul saa yi nii moom amul. poulet de pays waaw am na nag mais xaw na cher de waaw affaire yi moom saa yi nii yow daa manqué daa amul ci àll bi quoi. prix bi à ah, peu près trois mille trois mille cinq cent poulet de pays yi waaw ak yu gën yee mag quatre mille poulet de chair am na deux mille cinq cent am na trois mais yu gën yee nganda yi nii nii nii nii ay comme yële ne ay quatre mille quatre mille cinq bu jaaykat yi yokkee ñiy sukki ginaar yi seen affaire door di baax ba dee. benn cent noonu li ñu am par ko wax mais benn cent franc la. avant koor gi sax day am ci yàlla ànde lépp ci yàlla la dépendre rek dañuy sant yàlla parce que dañoo am suñu client spécial. c'est ñuy xaar nag arrivage bu gën a bari bu boobaa ginaar du ñàkk ba bépp sénégalais mën am lim su bëgg. leneen lu ñu naan danañu ko yokk mu di njëgu dakaar kon bis dakaar dem dikk yi loolee subvention bu nguur gi war jox kon kilifa yi kër gët gisaguñu ko ñu bëgg ko wér ci kaw askan wi askan woowee nag nee na xalaatul lu ni mel subvention boobu toll na ci ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions Fatima Taba. ci atum 1994 ba léegi coppite amul ci njëgi busu Dakar dem dikk yi ki jiite kër gi nag altine gi mi ngi xamle ne mën na am ñu yokk njëg yi ngir rek combler li nga xamante ne moom la ñuy ñàkk ci ticket gendarme yi ak militaire mu nekk ab mbir moo xamante ne askan wi joxe nañ ci seen xalaat. c'est un différent boo xam ne entre ñoom la ak nguur yi je pense que ne ils peuvent régler ça bon à leur ñoom parce que buñ nee militaire yi duñ leen fay. xaw ma nguur gi du leen fay li leen militaires yi war a fay ñu nar koo jël ci askan bi bon je pense que ne loolu amul sens nguur gi war nañ mun a xool ay matuwaay yoo xam ne ñoom war nañ mun a déggoo ak waa Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk pour man il n'en e rien tout ça c'est l'état état moo ko di moo leen war a dimbali. mais loolu nag du yoon c'est anormal nguur gi dafa war a fay loolu pour que nit ñi am jàmm parce que loolu tax ñu teg leen fi. nañ ñu dimbale. te yàlla tax ñu waxan li ñu waxante waa Dakar dem dikk ñu respecté ko. ñenn ci ñoom nag dañoo jàpp ni njëg yi fi mu toll nii cher na ba noppi ab yokkute moom du li ñuy xaar. yokkute bi moom du ñu arrangé moom wax dëgg yàlla ak suñu salaire yu ndaw yi du arrangé moom waaw suñu sañoon daal ñu bakko fi mu nekk. li mu waxanteeg ñoom wala waa wala ñu gën ko wàññi waaw. buñ ko naree jël ci askan bi je pense que ne day causer problème ñenn ñi déjà leurs bus sont rares. depuis une plus d' une heure de temps je suis là bon en train le numéro 10 mais mun ma ko gis damaa war a dem ba ville déjà bon nga yokk paas ba pare bii si raar tamit loolu tamit du am sens. direction bi nag moom li mu xamle moo di nguuru Sénégal amal na ko lu toll si ñaari milliards yu tegal ñaari millions ci suñuy koppar te koppar yooyu la ñu ne entreprise bi dafa war a fexe ba jotaat ci. entreprise boo xamante ni moom mu ngi ci ay jafe-jafe Transrail liggéeykat ya ñoom ñooy waxaat ñu ni euh, sonn nañu licenciement yoo xamante ni teguwul fenn waaye it euh, fu ne ña nga leen fay bajang bajangee ci wàllu déplacement ñu bëgg nag ngir suqaliwaat kër ga nguur gi la mu diggee woon ak euh, Mali nañu ko doxal teg ci nag Bass Jaber abal leen Fatou Bintou Konté ay dàq yu bëri la ñu nemmeeku ci seen i biir ñu di leen di harceler wala ñenn ñi sax di démissionner ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne jamono jii liggéeykat yi nekk fii ca yi ña ngi koy jànkonteel. jafe-jafe yi mi ngi noonu ci biir kër gi ay harcèlement mutation affectation licenciement ñu ngi sax suñu xel mi ngi dem ci suñu mère benn rakk boo xam ne da doon défendre cause am di liggéeykat boo xam ne da doon def des heures supplémentaires di demander à ce que ko dans ses ñu licencier ko le camarade Bilissi et cetera. donc yooyu moo fa nekk actuellement man mi di wax ak yéen secrétaire général barki na ma demande d'explication ne ma da ngaa dem ci rajo bi wax fa ñoom cheminot yooyu daje ak tey ak taskatu xibaar yi di ñaan nguur gi mu appliqué li nga xam ne moom mooy schéma bu bees bi nga xam ne moom la ñu taxawal ngir Transrail mën a jëm ci kanam te moom ak Mali ñu taxawaloon ko te it di ñaan ki nga xam ne moom mooy Aba Jaber mu abal leen. schéma institutionnel bi nga xam ne moom la autorité yi tënkoon ne dañ ko war a appliqué pour joyanti Transrail léegi nag li ci nekk mooy depuis 2010 ba léegi ñu ngi naan tey suba gannaaw suba bu yàggu la ñu waxoon 30 mars ñu ni léegi le 30 juin tey ñu ngi ci le 20 le 17 juillet ñu ngi jëmaat vers des échéances yoo xam ne décembre la ñu yóbbuwaat. ci loo xam ne tey nee nañu moo war a sauver Transrail départ Abba Jaber boobu sax la ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diop jiite CNTS FC di ñaan moom i tamit moom mi nga xam ne ñëwoon na jàppale naataangoom yi nga xam ne dañoo nekk ci ay tolof tolof. loolu dafa gën a dëgëral suñu taxawaay ñun CNTS force du changement parce que dañoo wax mës a wax ne na nguur gi xool gestion wu Transrail bi Abba Jaber def na nguur gi xool gestion wu suñu or ay at a ngi ni ñu koy wax dégluwuñu tey jii nag mel na ni déglu nañ ñu gis nañu ne Abba Jaber fépp fu mu gérer société ba nërmeelu na. cheminot yooyu nag fas yéene xeex ba jeex ngir li nga xam ne moom mooy seen liggéey ñu mun ko sauver ba tey. programme bi suqali gox yee goxaan yi ñu dénk ko PNUD loole nag avenir senegal bi ñu bëgg moom gannaaw coow li dugg na ci moom it wax ci gis na ni mbir mi teguwul ci yoon ba waral ba mu jàppee ni nguur gi dafa juum jot na mu jubbanti laata bay di wey mbuus ajetala kuréel bi di avenir Sénégal bi ñu bëgg mu ngi artu nguur gi mu dellu ginnaaw ci dogal dénk PUDC ñi nga xamante ni ñoo ŋànk kuréel bii di PNUD ñuy xamal ni rek du weesuwul. programme bi lu baax la ndax lépp loo xam ne dana kattanal sénégalais yi ndax réew mi sonn nañu dina leen dimbali surtout ci àll yi lu ama am njëriñ la waaye ki ñu ko jox pour mu def ko moom la dul cëram waru koo def sénégalais lañ ko war a jox. ci administration bi def unité de gestion de projet boo xam ni dañu ciy boole ñëpp ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam am ci xarañ du ñu ci dugal mbiru politique ñu jël ko ñooñu ñu doxal ko. Cheikh Tidiane Dièye mu ngi ñaax nguur gi rek mu gën a dooleel administration Sénégal bi nga xamante ni dañ ko néewal doole. naam nangu nañu ni at yii ci ginnaaw administration bi xaw nañ ko yàqate te li ko yàq mooy politique ñu ci dugal. ndax gouvernement bu ñëw doo fa jël ñi nga xam ne ñoo jàng administration man cee liggéey mais ñooñu da danga leen di teg de côté dem jëli si ay waa politique dugal leen ci def leen ci agence yi ak def leen ci ay poste de direction ba ñu yàq lu bari ci administration bi ba tey administration bi amul respect mais li ci desoon a kas néew dañu doon xaar ci gouvernement bi kat. mu jàppale leen dimbali leen jox leen moyen yokk formation bi jox leen lépp loo xam ne moom lañ soxla ci jumtuwaay pour administration taxawaat. ci kàddu avenir Sénégal bi ñu bëgg koppar bi ñu jagleel PNUD mënoon naa saafara yeneen jafe-jafe. li faral di am programme yu mel ni ñoom bu ñu koy doxal dafa am lu ñuy wax ku euh, ni ñuy doxalee li ñu leen di fay pour ñu doxal programme bi dafay nekk en général ci 3 pour cent ba ci 7 pour cent bu ñu ko bàyyi woon ci biir réew mi jox ko programme bi ñu dem gase ko yeneen forage wala ñu tabaxee ko yeneen euh, ay ay ay services sociaux ci ci. dëkk yi dëkki àll yi yaakaar naa ni moo doon gën a am njëriñ. coow li ci mbirum PUDC critique yaa ngi gën di wéy rawatina ci société civile bi nga xamante ne dàqu ñu génn ci mbedd bi di ñaxtu ngir ñaawul dogal bi ñu jël. concours sous-régional Tarikon Alxuraan loolee ca Thiès la ñu koy euh, amalee élèves yi ñu jàpp ne nag ñoom ñoo ca gën a xarañ euh, danañu leen euh, sargal delloo leen njukkal la tax union de de la jeunesse musulmane du Sénégal profité ci nag yëkki ay kàddoom naqarlu yenn jëf yoo xamante ni ñenn ñi ñu ngi koy jëf di mbubbu l'islam ñu gis ni bokkewul dara Cheikh Anta Diop sey di ay ndaw seen at yi toll ci diggante fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak juróom jóge nag fii ci réewum Sénégal ak dëkk yu wër Sénégal ay ndongal daara lañ jóge ci école yi jàng alxuraan ba mokkal ñu ci bëri nag am culture général lu jëm nag ci wàllu alxuraan ñoom lañ doon jukkal jox leen nag ay prix concours sous régional xool xale yi ci gën a xarañ Union pour la jeunesse musulmane sénégalaise nekk tey ji ci ñaar fukkeel ak ñetteelu édition ginnaaw bi mu dooree concours sous régional ba léegi. xaaj bu njëkk mooy ñi nga xam ne ñoo mokkal mboole seen alxuraanu karim te mën koo tari ak ñi nga xam ne ñoo mokkal xaajub alxuraan bi ak ñi nga xam ne mën nañoo bañ a mokkal mais dañu am culture générale sur euh, li tax ñu def concours bi aussi mooy yombal gise bi ci doomu daara yi encouragé ñi mokkal alxuraan encouragé sëriñu daara yi ngir ñu mën a gën a yittewu alxuraan bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa moo ni ñun ñoo wàcc alxuraan waaye ñoo koy sàmmal suñu bopp. daanaka tarixa yu bari teewoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi diine de ñu ci bëri yëkkati seen kàddu joxe ko xamal na ne de lu jëm nag ci wàllu ñu ñuy dundee lislaam jamono yi de lu leen ëlëm la ñoo xam ne dañoo jóg di mbubboo lislaam di ci def naka sudul noonu ñoom de nee nañ loolu dàq nañu ko. yor fi kàddu union de la jeunesse musulmane sénégalaise ñu ngi métti di condamné képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo turu bu mu mënta doon rawatina diine islam yi nga xam ne moo mujj ñëw ci diine yi résumé diine yëpp tënk diine yëpp te muy diine joo xam ne léppam jàmm la tàmbaliwam jàmm la jeexitalam doomam jàmm la ki nga xamante ne moom mooy organisateur concours sous régional bi nee na nag xale yi nga xamante ne tànn lañ leen ci seen xarañte daañu dem fële ci Koweït ngir bokk ci concours international bi daal di wax xibaar bu soxal wàllu tàggat yaram ak Maguette Diop mi ñu def directeur technique bu basket bu Sénégal loolee nag mel ni ñi topp kon discipline boobu d'accord nañu ci li ko waral nee nañ parmarèsam ak expertise boo xamante ni xamal nañu ko ko Pape Cheikh Diack Younous Diatta ñoo koy leeral. tabb bi ñu tabb màgget Diop ngir mu jiite direction technique nationale bu basket bool doon lu jaar yoon bu ñu sukkandikoowee ci journaliste yi expérience am mëninam ak palmarèsam ñoo def différence. différence bi ak ñi mu doon xëccool poste bi. waaw différence bi boo xoolee par rapport ak critères yi nga xam ne moom la fédération tëddaloon pour euh, choisir ki nga xam te ne mooy yore direction technique nationale boo xoolee boo xool amatul woon photo par rapport ak ñi nga xamante ni moom la doon xëccool. dans na ay titres ak jigéen ñi nekk na fi directeur technique national nekk na fi entraîneur gagné na fi Jeux africains en 2007 gagné na fi Jeux de la francophonie. en 97 donc je pense bien que par rapport ak critères yi fédération bi tegoon pour tab directeur technique national moom il a rempli les ces critères là. li mu liggéey ak metre Babacar Ndiaye président fédération sénégalaise bu basket fële ca Dakar Université Club doon na lu nar a gën a yombal mbir yi. xamante nañ yàgg nañoo liggéey ñooy liggéey euh, depuis deux trois quatre ans yu maître Ndiaye nekk président DUC te ça se traduit dans les résultats du. Dakar Université Club bi gagné championnat Coupe du Sénégal euh, sur le plan régional parlons pas. liggéey bi diggante euh, président fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye ak euh, ki nga xam te moo di Maguette Diop maanaam liggéey bi nga xam ne dañ koy yeggal rek sur un autre plan parce que door nañ ko ci seen club avec le Dakar Université Club. suñu sukkandikoowee ci ñiile di yëngu ci basketball bi Maguette Diop am na lépp ngir réussir mission bi. c'est vrai Maguette Diop moom lañ tabb mais au la tamit foog mu am ñi nga xamante ni tamit euh, ñoo koy wër jàppale ko ci liggéey bi fédération foog mu génne aussi les moyens. que ko joxee moyens yi mu soxla gina mën a relancer waat basket bi participer ci développement bi. Euh, mais aussi permettre Sénégal mu reconquérir titre africain yi. laata ministre des sports di signé ordre de mission am Maguette Diop dina liggéeyandool ak Ousmane Pouy Faye mi yor jamono ji comité technique intérimaire bu fédération bu basket. ak ci dossier bi front patriotique pour la défence de la république la ñuy càmbar ay mbiram bari kon tàngee lu muy génn ŋàññ nguur gi lan moo di kon poam dëgg lu muy pese euh, ci làngu ko politique yi ku ci ne ak na nga ko gisee ku demee ni amaat kan taskatu xibaar xam la ne ak lu mu ci mënti doon jaruñoo xepp ko de Ndiaye Marja front patriotique pour la défense de république di wéy di ŋàññ nguuru Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci kàddu jiitu jigéen ñi fare ci organisation boobu doole front bi kenn dootu ko natable ay parti politique yoo xam ne nii dañoo am seeni këyit ñu nangu leen ni parti politique la nit ñu mat kilifa jiite ko ànd ak seeni militant ñooñu ay parti parti yu sakkan macha allah te ñeneen a ngi ñëw. njiitu réseau bi ëmb enseignant yi fare ci APR jàpp ne coalition boobu mënta yëngal benn yoon nguuru Macky sàll mënta yëngal sa kër wala ab néegu ñax nooy mën a yëngalee nguur. ñun APR dañoo respecté Sénégal ñun buñ sañoon ku jegi du ñuy doon ay nit ñu am doole ku jegi day am doole. Euh, démocratie pouvoir bu amee doole rek nguur bu amee doole nañ fexe ba opposition am doole wante doole opposition boo xam ne bi la xaste la saaga la si ñoo xam ne ñu kër sax mënuñ koo yore. parce que ñun Sénégal ñun suñ biir xamante nañu. ci xalaatu journaliste bi FPDR coalition la boo xamante ne nii kenn waru ko minimiser. ñaari front la daanaka FPDR bi mi ngi fii mais am na beneen front boo xam ne ñu ngi koy waajee ñu ngi koy nas muy ñoom de Decroix euh, ak ñoom Pape Diop Baldé Idrissa Seck. bu fekkee ne nag euh, front boobu xëy na boole nañ ko def ko benn. bu boobaa dina am dina am front bu rëy lay doon bu boo xam ne mun na menacer aussi coalition bi nekk pouvoir mooy mooy Benno Bokk Yaakaar te loolu yaakaar naa ne ci ñi ko jiite tam duñu ay nit ñu am expérience ci politique. ci lu jëm ci wàllu motivation FPDR xalaat yi daal di wuute. li xeex mooy defaraat réew mi delloowaat ka ci yoonu jub delloowaat ka ci yoonu koom-koom lijjanti mag ñeeg gone yeeg jigéen ñi ba ku ci nekk tey lay sa wàll ñu jox la wëlbatiku nag ki nga xam ne nii mooy droit ak justice ñu delloo ko ci yoon. xaste saaga xaxar loolu yoru réew suñu réew yàlla dafa am lu ñu may. jaarale ko si diine bi muy bu jullit muy bu katolik jaarale ko si euh, xalif généraux yu fi mos a nekk nit ñu yiw ñu fi nekk ñi donc yaakaar naa ne ñun bañuñu ku marche ñun bañuñu ku ñaxtu ñun bañuñu ku ñu ne lii ngeen di def baaxut mais nañ ko wax si njëkk ak teraanga. mu mel ni xeex bi nar naa métti ci diggante front patriotique pour la défense de la république ak nguuru Macky Sall Mamadou de Decroix ak ay àndandoom fas yéene amal ay manifestation ngir jàkkaarloo ak nguur gi. ngërëm ko ci dossier bi euh, Codé Ndiaye euh, yegg si kon euh, dalal suñu gan Ibrahima Khalilou la Ndiaye secrétaire général Synpics Ibrahima maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna si. Euh, Ibrahima li ñu tàmbalee xibaar yi moom la ñuy tëjee maanaam euh, ay directeur publication ay journaliste ci section recherche kon bu Colobane gendarmerie bu Colobane Mohamed Gueye ñu garde ko à vue Alioune Badara Fall Mamadou Wane ñoom ñu ngi bagante di dem ak dikk mu mel ni démb kon xëy na la tasaaroo ci presse bi mais fan yëpp ñu ngi ci mbir mu ni mel Synpics yëgoon na ko. waaw defe naa ne mbir yi yéeg door barki démb bu euh, nga wax sax ne à l'époque bi ñuy génnee article yi euh, amoon na ñu si convoqué ñu waxtaan ak ñoom ñu bàyyiwaat leen lu moo tax sax mu gën a bett nit ñi parce que euh, mën na ay weer mbaa ay ñaari weer lu si tollu moo tey ñu woowaat leen mu doon li nga xamante ne xaw a jaaxal nit ñi xaw leen bett démb tamit ñu convoqué waat leen mais barki démb la tàmbaliwaat. Euh, am na ñi nga xamante ne euh, kii kii kii kii di Mouhamed Gueye fa la fanaan mais waaye Alioune Badara Fall mujjee nañ ko bàyyi. même bu dee tey tamit comme ni nga wax ne dellu na foofu moom ak reporter bi mooy Mamadou Seck. Mhm. Euh, donc affaire yi ñoo ngi si enquête je pense que tey dinañ leen wan procureur waaye y' a de péril en la demeure bu soobee yàlla dinañ leen bàyyi bu soobee suñu borom. Euh, dinañ leen bàyyi ñu delluwaat euh, seen njaboot mais loolu bokk na ci lu Synpics xëy na yàgg di wax taskatu xibaar yi nga xamante ni ñu ngi baagante ci wàllu yoon mu mel ni ci dossier yooyu ñëpp ñu de source la ci Mohamed Gueye procès verbal audition Thione Seck ci Sall déploiement li nga xamante ni moom mooy armée bi euh, fële ci Arabie Saoudite bu ci ne ñu wax secret presse bi euh, siiwal ko mu mel ni euh, loolu xëy na te presse bi ñoom li ñuy wax mooy du ñu divulguer seen ay sources mu mel ni ponk boobu ba tey ji mi ngi weddi indi coow. waaw xam nga taskar xibaar moom bokk ne wax ma kan moo la jox xibaar yi dafa mel ne comme yow kooku euh, da da da ngay rey carrière am bu la joxee bu la joxee suuf rek mooy maanaam moom mën na changer di métier defati leneen dul journalisme parce que journaliste buy joxee suuf kat dool kenn da kaa gisul te puis boobaa tamit kenn dootu ko wóolu ëllëg pour mun ko jox information donc day doon balu ping pong ñi dañuy bëgg a xam ku leen ko jox ñi ñi di ñi ñii di leen ko euh, bañ a wax euh, léegi ci beneen fànn bi mooy. man defe naa ne dañoo war a nekk aussi place taskati xibaar yi ñu seetlu ñu que ñoom au bi ñuy joxe information yaakaar nañ ne kat ñu yónnee ay doomu Sénégal yi Arabie Saoudite Yémen nekk na li nga xamante ne am na solo trop. ñor na askan bi ba war nañ fexe seen kéemtalaay kattan ñu wax si. benn d'autant plus que amoon na première guerre du am na doomu Sénégal yi fa demoon te et puis tamit ñenn ñi tamit ñu ñàkkoon fa seen bakkan mu doonoon li nga xam te daf leen tiis day mel ne comme traumatisme ci peuple bi donc dafa doon ñaari affaires yi nga xamante ne con mbiru Thione Seck bi tamit dafa nga xamante ne xawoon na jaaxal na ñi parce que fu mu toll ak stature ak lu mu nekkee a nationale la bu ñu leen bu ñu ko tuumaalee si mel nii. taskati eh, xibaar bi am audition bi day naan kat ah liy weddi gis bokk ci di ñaa ngi naan ne dëgg la am du dëgg. waaye bu ñu liyee quand même gis ne quand même coon rek moo ngi ci biir. ci wàll boobu. Ibrahima dañuy taxaw foofu tuuti rek daawaat ba fële kon ca Colobane eh, fekk jiwaat fa suñu ndaw ndax mel na ni gars yi ñu ngi leen di yóbbu ngir ñu jàkkaarloo ak procureur eh, Codé kon mbir mii foofu la toll. allo allo waa waaw soxna Ngoné. kon gars yi euh, mel na ni ñu ngi leen di génne section de recherche. waaw waaw effectivement noonu la demee gannaaw euh, bi ñu leen dé dégloo euh, moom Mamadou Seck ak Alioune Badara Fall dafa mel ni moment yi ñu leen di yóbbu pour defeere leen loolu mooy information bi nga xamante ni mën nañu koo joxe gannaaw si mu nekk nii ñu dem nañ tribunal instant ñu ngi tribunal kon boog liñ ci mën a wax rek mooy fi mu nekk nii jóge nañ Colobane ABF ak Mamadou Seck jóge nañu fi nga xam ne moom mooy section de recherche. def ñu leen yóbbu tribunal pour defeere leen actuellement li ñu def mooy dem tribunal xool ba xam la fa xew li ci mën di am rek su bu soobee yàlla dinañ ko déglu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo suñu téléspectateurs yi. Mm, uh-huh. euh, mu mel ni euh, Mouhamedou Guèye moom ma nga fa ba léegi Codé. Euh, mel ni génn na kon euh, ni ñu ko waxee woon ñu ngi dem euh, indi jàkkaarloo procureur ci li ñu leen di toppee Mouhamed moom xam naa ñàkkul gannaaw bokkul ci ñuy yóbbu mi ngi wéyal garde à vue am foofu. waaw xam nga aussi lu ñuy wax ne mooy il faut que nit ñi placé yàgg nga xam ne aussi taskati xibaar yi ñu ñoom ñuy wax mbaa bind lu leen neex fekk dara lu leen si fekk duñ assumé wu mm-hmm. il faut que nit ñi xam ne que ñoom au bi ñu joxe information yi parce que. Eh, yónni doomu Sénégal yi Arabie Saoudite indil na coowal bu rëy eh, si réew mi ba tax ne que à l'époque ñu yaakaaroon nañ ne que ak fi ñu jaar ak première guerre du bi ma doon wax léegi que am na solo trop nit ñi xam ne lu ñu fay def yi maanaam léegi nag problème bi yëpp mooy est-ce que sañ taskati xibaar bi am na sañ-sañ wax lu nekk mbaa eh, am na fu mu war a yem. je pense que taskat xibaar yi xam nañ ne am na yi nga xam te ne. mais mais ci wàllu woowu parce que ñoom question de sécurité la ñuy wax xëy na boo nee l'armée bi nii ak nii ak lañ leen di euh, tegee xëy na bu boobaa ñoom dañuy jàpp ni li waral ñu woo leen da nga leen di exposer parce que c'était euh, des choses yoo xamante ne xëy na jàpp nañu ni euh, secret la yow gisee nga noonu. waaw xam nga ñoom loolu la ñuy wax confidentiel défense boo xoolee jargon militaire bi. récemment gis nga ku mel ne ay États-Unis ñu naan déglu nañu ñetti président français yu mujj yi dañ leen doon mettre sur écoute dañ leen doon espionné xam nga nit ñi dañuy espionné seen xarit sax waxuma la ak seen noon donc euh, te pays boo gis am na renseignement militaire am na nu mu organisé am nu mu tëddee euh, kenn buggul ñu xam say effectif kenn bëggul ñu xam say yenn affaires yi moo tax aussi yenn euh, information yu ñu jàppee comme Euh, ay information sensible secret défense que waruñ ko publier euh, te taskati xibaar yi tamit ñoom it xam nañ ni defe naa ne euh, seen kaaraanga tamit moo ngi dépendre si armée bi ñun ñëpp on est embarqué dans la même galère léeg-léeg dina am journalistes yi ñooy peser le pour et le contre à l'intérieur des rédactions ñu xool fekkee war nañ génne lii am lële ku nekk moom à ton niveau individuel d'abord mais lu luñ ci mënte wax rek mooy nit ñi dañoo war a xam ne que taskati xibaar yi ñoom ci peuple bi lañ bokk waruñu def li nga xamante ne day eh, néewal doole réew mi. Mhm. donc ñun on en est conscient. Mhm. mais tamit léeg-léeg ñu am information yi nga xamante ne dañuy yaakaar ne que àgge ko askan bi am na solo trop boo xoolee lu mel ne tamit. Euh, comme Thionsek bi ni ma ko doon waxee sànq euh, publier ay liam ñu bëri si sénégalais mënuñ gëm na Thionsek def na loolu de de faux de faux xam nga de euh, devise naan dafay luubal xaalis bu baaxul donc nit xel mënu kaa dégg moo tax parce que si xibaar bi mu amee information bi rek kii rek day naan di kat preuve la xaa ma jox ko ne nii mais dama bëgg rek nit ñi xam ne que journaliste yi tamit. mel ni kon loolu lépp question de responsabilité responsabilité la. Mm-hmm. waaw léegi euh, je pense que d'une part professionnalisme journaliste dañ leen interpellé mais également aussi que armée bi boo gisee at yu passé yëpp ñoo ngi def ay formation di waxtaan ak mm. taskati xibaar yi amay rapport yu bien si ñoom léeg-léeg ñu organiser ay session xamal leen lii ak lii ak lii ak lii ak kat war nañ xam war nañ ko xam donc je pense que war nañ mën a gën a wéyal waxtaan bi tey bu ñu leen arrêté ba yóbbu leen devant le procureur dina tax ne que ay information yi nga xamante ne dafa jàlloon fekk kenn bàyyiwu si xel sax nit ñi euh, loolu éveillé seen curiosité moo tax war nañ fexe seen kéemtulaay kattan di xool aussi xam nga boo jëlee ñetti directeur publication nga arrêté leen tey ak niveau démocratie Sénégal fu mu toll waxuma taskat xibaar nañ def leen neex fekk dara leen fekk. déedéet ñu waxuñ lool de. loolu gars yi mel na de toute façon duñ leen ci bàyyi parce que euh, li ñuy wax bu ngeen posé un acte il faut que ngeen répondre quand même. waaw waaw loolu c' est tout à fait logique et je pense que. les gens je en conséquence mais problème bi mooy aussi. Mhm. il faut que nit ñuy waxtaan xam ne ñu ñëpp ñoo bokk réew mi lépp lu taskat xibaar yi du jéem def. pour pour eggee ko askan bi la parce que mhm. askan bi mooy en définitive seen seen seen raison de vivre mais aussi en tenant en compte certains impératifs yi nga xamante ne euh, day aar dëkk bi sécurité am tamit ci lay bokk dina ci bokk kon Ibrahima Khalilou la Ndiaye ñu koy gërëm directeur général secrétaire général Synpics euh, mu mel ni kon mbir mi dañu koy topp yaakaar ne rek ni nga ko waxee xëy na ñoom ñooñu nañ delluwaat léegi seen njaboot ñuy wéyal waxtaan yi rek xool fan la intérêt kan wi euh, gën a féete kon ñu lay gërëm di la sant euh, ci sa teewaay ak leeral yooyu jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñooñu doon seetaan benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah 19h dellu si ci yeneen i xibaar yéen kay mel ni kon euh, des na euh, moom la ñuy euh, àndal Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu ko faram la jërë ngeen jëf caat ma ne woon même chat yi même chien yi même va yi même vient yi ne leen ko wax na dëgg ju dëggu dëgg ju dara fayul ne la woon ci réew mi woon neegul bi leen le quotidien quotidien ak l'observateur le quotidien ne nañu démb gendarmerie la ñu bukkale ne seen i njiit mu di Alioune Badara Fall mi directeur de publication bu l'observateur ak Mohamed Gueye directeur de publication le quotidien gendarmerie Colobane moo leen woolu woon démb Alioune Badara Fall le quotidien nañu ginnaaw ay waxtu yu bari ñu ko déglu mu jàkkaarloo ko gendarme yu Colobane dañu ko bàyyi tey ji ci suba lay delluwaat sa kaca des moom di Mohamed Gueye directeur de publication bu quotidien gendarmerie la fanaan yéen a kaay bi nañu waa section recherche ñoo ko fa woolu woon commandant Diack mi ko convoqué waroon ko déglu ba Mohamed Gueye di yegsi da ko fekk muy waxtaan ak genn kilifa gu mag gu nekk ci l'armée bi lii waral ñu teg ko foofee di ko xaarloo waxtu julli jot Mohamed Gueye sàkku ci gendarme yi ñu bàyyi ko mu dem julli ji journal bi nañu ba ñu ko bàyyi mu dem julli la ko déglu ci la ñu ko dóoree garde à vue populaire nañu directeur de publication yi neex la wu ñu démb Mohamed Gueye moom mbirum Thione Seck ak procès verbal bi nga xam ne Le Quotidien génne woon nañu ko loolee la ñu ko fa yóbbu Alioune Badara Fall moom Yémen moo ko yóbbu ci gendarmerie ndax ñaari junniy soldat ak téeméer yi nga xam ne Sénégal war na ko yóbbu ci Arabie Saoudite ñu jàppale ko ca xeex bi muy xeex diggam ak Yémen soldat yooyee bu ñu yeggeeg nañu doxalee ak ñoom observateur da ko bindoon lii mooy li ñu koy toppee enquête nañu dara lii lépp pexee xoqatal la rek opération intimidation ñetti directeur de publication

bi bind article bi dañuy delluwaat gendarmerie journal bi nañu li xel mënuta nangu moo di ñi nekk ci réew mi war a doxal yoon mu di kilifay réew mi ñoo bëgg Alioune Badara Fall yoon ne la ko yóbboo ca gendarmerie neewuñu ko li nga bind du dëgg li ñu ko wax moo di xibaar bi nga bind foo ko jëlee te lu waay gàtt-gàtt xel war xam ne article onze bu charte des journalistes am na lu mu wax ci wàllu source mu di laas nee na ay source nee na ñu ko tombon waali moo dóor Bassirou Faye bal ci bopp mu jaare fa faatu yéen Assimi Diouf jox na leen non lieu ndax nee na li ñu leen di toppee moom doyen des six gisu ca lu bu jàmm rek day am laas nañu ñoom ñetti policiers yooyee léegi tey ñu génn ma génn ci mbirum police ak gendarmerie te dugg ci mbirum programme urgence développement communautaire li tax Macky Sall dénk ko waa PNUD mu baraag lu xëy na ko leeral ci réew mi quotidien ku ndubin ray samaam boo gisee lu ñuul daw mbir mépp Aminata Tall la ko waral ni yéen programme développement local Macky Sall doonoon premier ministre daa jële woon programme boobee a mu wax ko ca ñu a ñuy topp ci mbir mi di coow yëpp dañu ca ëppal Sud Quotidien nee nañu Macky Sall ko léegi moog waa LD di Ligue démocratique ñoo ca des ubbi leen journal bi Moussa Sarr mi amee kàddug LD ay kàddoom ci biir yéenekaay bi mu nañu fa Macky Sall diggee woon ne mandaam dana ko def juróomi at na góorgóorlu ba wàccoo ak i kàddoom grand place nañu moom Macky Sall moo nar a am mbetteel mu rëy ne waa parti Rewmi di Idrissa Seck dem nañu ba ca Fatick mu dëkk moom Macky Sall ñu bari ne woon ca partem ba APR ñu déboose leen waa jeunesse consciente bu Fatick ñoo ngi léegi ci parti lépp nag grand place ñu Déthié Fall premier vice président bu parti Sall di fa débauché ay nit di yóbbul Idrissa Seck Pire va mal kuréel googee dal nañu ci kaw maire bu Pire mu di Serigne Mboup Mamadou Ndoye Bane ak i gaayam ci direct info nañu Serigne Mboup mi ñu dénkoon comité normalisation basket mu normalisé basket bi lu mu normalisé ci basket bi rek yàq na lu ñu toll ci diwaanu Pire ba ñu ko falee ci Pire ba léegi defu fa dindiwu fa Serigne Mboup dafa gën a delloo gannaaw Pire lu Pire mi ngi ci libération mbirum ñeenti ndeysaan moo taala ñang moo dox ba for gone yi bañ ñu tumuranke bañ ñu xiif tax mu jël gone yi di leen dundal di leen sàmm bés la toog dégg ab communiqué ci rajo bii di raay bi FM ñu ne gone yi dañoo réer yéen a kaay bi dañu gone yi ci noonee la ñu feeñe waaye lañ ci wax yëpp dara ci amul ngërëm ko Mamadou Mohamed Ndiaye jaajëfal leen kon niñ ko defee woon fi la ñuy yem waaye xibaar bu mujj bi jàpp leen ko Ndeye Ngom Bambilor euh, génn na àdduna euh, enterrement bi nag euh, dinañ ko communiquer nee nañ ci waxtu yi ñuy dëgmal ñu koy jàllay mbokkam fii kon la ñuy yem ci xibaaru digg ba bëccëg gi programme bi niñ leen ko waxee permanence lay leere ak Kebs Thiam Kebs ma lay nuyu. ma lay fay bu baax soxna Ngone. gaa yaa ngi la doon xaar ci suba tey kon. waaw ci biñ ma doon xaari tamit euh, tax na rek euh, comme dañoo euh, defal li nga xam ne moom moo di Pape An dañoo génn ci laylatul xadd mm-hmm. ñu enchaîné ko rek li nga xam ne moom moo di def gi ñu ñëw léegi indi leen li nga xam ne moom moo di permanence bi am na solo kon bisimilah. Mm-hmm. bisimilah. <laughs>